peñu ma saar gannaaw loolu benn ci juróom ñaari malaaka ya taawu juróom ñaari ndab ya ñëw ne ma kaay la mbugalu jigéenu moykat bu mag bi toog ci dex yu bari moom la buuri àddina si àndal ci seen njaaloo ci bii ñu moy yàllaam la waa àddina màndee noonu xelum yàlla solu ma malaaka ma yóbbu ma ca màndik ma foofa ma gis fa jigéen ju war rab